بسم الله الملوحي بلا معنى وعلى انتهاي بسم الله الملوحي بلا معنى intihaay aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu soo leen gisee jëmm ju tedd ji ngeen xam ne bis ñëwatina na si bisi sëriñ Tuubaa muy sëriñ ab Lahad Mbacké mu sëriñ Cheikh Abi ñuy waajal bis bu màgg di bisu xaside yi sëriñ Abdou Lahad Mbacké mu sëriñ Cheikh Abi ànd ak waa kuréelu kennal sëriñ Tuubaa Jaalibatul Maraaxib ak mboolem ahlu xasida si ndigalu sëriñ Tuubaa Cheikh Sidi Muxtaar waaye di ko ànd ak sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu mi nga xam ne kenn la si xasida yi du ñu def leen lu di jox sëriñ Modou Ndiaye bu noppee ñu jox sëriñ Cheikh si la buñ noppee ñu jox sëriñ ab Lahad Mbàkke moom sëriñ Cheikh Abi mi nga xam ne mooy taxawal bés bi di ko ànd kuréelu kenn sëriñ Touba Jaalibatul Maraaxib di siyaare Cheikh Sidi Muxtaar di ko ci jiital ci nuyoo bi di ñaanal di nuyuwaat Cheikh Abdou Lahad Mbàkke mi nga xam ne moo waral jataay bi tey jii ci daaray Belal su ngeen gisee jataay bi tamit xam ne lu ko wund mooy la daan am rek mooy amati mooy bisu xasida bi ñu daan def ci Masaalikul Jinaan di kuréel kendal Serigne Touba kon bu loolu jàllee tamit nañ ko daan baaxoo def rek di ci woo kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba ak li ko wër nañ ko daan defee rek kuréel gu nekk soo diggee woote bi xamal ne mooy sa lettre bu la war ñëw fekk si la fa nga nekk kon ñu ngi ci woo mbokki xasida yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn góor jigéen ak mag ak ndaw. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe yi mbokk jullit yi mbokki diaspora bi bitim réew Italie France ak ak fépp foo xamante ni taalibe Serigne Touba mi ngi fa ñu ngi jottale suñu nuyoo di xamle yaatalaale bis bi nga xamante ni moom lañuy ñuy waaj ca Masalik te jëmm ju tedd ji di ko ànd ak baayam bi di Seydina Amsatu Mbàkke ci ndigalu Serigne Sidi Mokhtar ñu koy amale ca Masalikul Jinaan le 17 mars ñi ngi ciy woo ñëpp ba képp ku ci nekk nam ko daan taxawee rek ren it ñi ngi leen di xaaraat ci loolu ci yeneen anam yu ko gën a yu ko gën a kawe bis bii nag daanaka moom mooy symbole la ci yoonu murit ndax bis bu ñu sigil la fii ci ndakaaru bis bu ñuy wa bu ñuy waaj la it ndax euh, bis boo xamante ne euh, kullu képp koo xamante ne xasida yitteel na la te nga nekk ndakaaru rek daanaka ñu ci baree bare bare ñu ngi koy ñu ngi koy ñoom waajal nañ ko seen bopp te euh, message bi sax jàllagul kon ñi ngi tàllal loxo yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi du tiijaan du xaadar du laayeen du ñaseen ñëpp lañ woo rek ci bis bu màgg boobu ñuy liggéeyal fas yéene liggéeyal Serigne Touba foofu ca Masaalikul Jinaan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baalu àq te di leen baal àq te di leen siyaara te di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal tawféex sëriñ bi gannaaw nuyoo bi nag li waral jataay bi mooy bisub xasida bi ñu baaxoo amal ca ndakaaru guy masaalikul jinaan ren ñu jàpp ko mu war a doon 17 mars ñu koy def ci ndigalul sëriñ Sidi Maxtaar yàlla na fi yàgg te wér ñu di ko ànd ak sëriñ sa Mbàkke moom sëriñ Sohaybu ci taxawaayam bu baax a bis bi yitteel ko lool ñu ànd lépp muy suñu kilifa di suñu jëwrin ci liggéeyub suñu tubaa bi kon nag ak mbooleem sëti sëriñ tubaa yépp ñu di ci ak mbooleem kuréel ñu ànd ko ak mbooleem kuréeli xasida yépp ak duruskat yépp ak rajaskat yépp bis bi ñu ngi ci woo mbooleem ko yaakaar sëriñ tubaa di la ci seenu di la ci ñaanal tawféex sëriñ bi ak ngërëmul sëriñ tubaa kon ba 17 mars jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu إلى توالي في يقود الله إرساد لا إله إلا الله إلى توالي في يقود الله إرساد لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي خادم